sëriñ bi soxna si bu yaa ngi soog a dugg ci chaîne bii di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné ba noppi ba sa cloche de notification bi la ngir mën jot suñu vidéo bu ñu gisee lu nar a yàq réew mi aajowul ñuy xaar ba ñun ñu ñëw ne leen wax leen ci parce que tuuti nañ torop ci wax leen lu ñu war a wax ak lu ñu war a def waaye malheureusement kenn dégluwul woon ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggee fi mu yegg gëm naa ne kilifa yëpp def nañ ci liñ ci mën a def waaye sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ay ndaw yebal leen yebal ndaw gu mat ndaw nag muy sëñ Basiiru Poroxaan bi mu ñëwee ñun ñëpp dañoo daje fii lañ ko resevoir hôtel Mamoun yéen la la presse na ngi woon foofu mu wax ci kanamu àdduna yépp nag parce que du loo xam ne dañoo tëj woon ci néeg di ko wax moo tax xaw yu ma fi sutura li may wax yépp su ngeen duggee léegi ci YouTube gisaat vidéo yi mu wax ñépp dégg ko mu ne kilifa gi dem moo ma yónni nee na daf leen ñaan ngeen teg mbir yi ci suuf manifestation yi ngeen war a def suba ak fan yi di ñëw ngeen may ko bàyyi ko waaye yemul foofu li ngeen xam ne moo leen métti ci réew mi na ngeen ko tënk ci kayit teg ko sama loxo ma yët ko ko moom dina ci dox lim ci war a dox bi loolu amee ndax dañoo amoon dañoo am kuréel gu tudd M2D mouvement pour la défense de la démocratie bi mu amee mouvement bi daje waxtaan ñu ne kilifa gi ñaan nañu nañ ko ko nangul andi won dal bi amoon ci jamono jooju fateli. ñu parce que jamono joju buñu bayyi won xalé yi konte li liñuy def ñaari fan lañ ciy tek ñaar mo mu a soit nguur gi dina daanu wala li fi rot ci bakkan dina beuri trop man ci lañ ma doon doga bayyi le 6 la génn ma ma jël le 8 la génn le 8 mars ma jël sama responsabilité fi ci salle bi la def conférence de presse leader yëpp nek fi ne ni la démé ni la démé M2D def conférence de presse ñu nekkoon mbir mi ñu ngi ñaan ñépp ñu bàyyi mu sedd kenn ku ne dellu këram loolu nag doonoon ndam ci senegal ndax àdduna bi yëpp dañu ne xool leen modèle sénégalais bi du tubaab moo jóge fële ñëw àtte suñu du Nations Unies moo ñëw àtte ñu du euh, Union africain moo ñëw àtte ñu du CEDEAO moo ñëw àtte ñu ñun ñoo am suñu modèle fii ci biir réew mi ñu wane ni modèle boobu mu ngi dox ba léegi parce que nit ñëpp demoon nañ ba ne waaye nit ñi déggatuñu nii ñëpp wane ni am nañ fi ay kilifa yu ñëpp déggal ba suñu nee def leen di nit ñi nangu ko def ko mu woon ndam gu rëy télé yëpp wane ko France 24 BBC TV5 ñëpp def ci reportage ndam googu nag nga xam ne ndamu Sénégal la woon di ndam suñuy kilifa diine waaye di di suñu ndam ñu ñii acteurs yi nga xam ne seet nañu lu bari jox cër ak orma suñuy kilifa ba tax ñu ñaan ñaan ñu teg ci suuf suñu ndam la woon ñu nit ndam googu nag mi ngi waaj a nërmeelu ndax fi ñu jëm fi ñu jëm su dee fañ a tegoon dossier bi lañ ko jëlaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi suñu kanam ci ay troisième mandat ki ay tëjaate ak ay reyaate fi ñu jëm li xewoon mën na xewaat ci lu yàggut te ñaanuñu ko yàlla te buy ñëw anam yi muy ñëwee dina gën a métti te kooku du doon ndamu kenn ci senegal am na nag lu ñu bindoon teg ko ci loxo kilifa gi li may wax nii bu doon giseeg moom yomb na ma du fii laa koy waxee damay toog wax ko ko yónnee nañu def nañ lu ñu mën a def pour mën a am gise googu pour waxtaan ak moom ci li xew ci réew mi juróomi weer ci gannaaw boobu egsee gu ñu woon fii honorable présidente ay Mbodj ak docteur Cheikh Tidiane Dieye jóge nañ fii Ndakaaru taal seen oto dem ba Poroxaan fekk fa sëriñ Bassirou Poroxaan ne ko ah Serigne bi lii de lii ak lii ak lii waxoon nañ ko waaye lii ak lii ak lii moo am ci réew mi boobu ba léegi ñun nag ñu ngi commencé jaaxle te fi mbir mi di jëm kenn ku ne dina seet nu muy fagaroo. te bu boobaa li muy yàq ci réew mi dina bëri kon mbir maa ngi bëgg a yàqu te ñëpp sedd nañ ni li koy yàq jógewul ci ñun parce que sénégalais nag li ci ëpp ku fayu la xam mbir maa ngi bëgg a yàqu te jógewul ci ñun amul lenn lu ñu mën a ne ñun def def nañ ko te loolu moo indi coow li wala moo andi fitna ci réew mi kon waxuñu ko parce que dañuy wut ndimbal waye bu de réew mi bu amé fumu tollu ñi nga xamné ne lañu la wolu len wóolu len gëm len ñuy kilifa diiné faaw rek ñu wax ci parce que ñun ñep seen jabot lañu kon dañ leen ni teel a bala ñuy egg fofu kilifa fudine yépp nak la wax ndax ñun amuñu ci xajj ak seen kilifa diiné yépp yu ne ci réew mi am nañu ci commencé addu dem rek envoyé nañ ma benn boo xam ne def naa kenn ci njabootu sëñ Abdou Lahad sëñ Murtada moo ko ci wax ñu koy rafetlu bu baax rafetluñ ko parce que dafa wax loo xam ne daf ñoo arrangé parce que mais dafa wax loo xam ne mooy njëriñu réew mi kon ñu wax ñu tëjee ko foofu wax nag li fi xewoon bu ñu bàyyi mu demaat noonu nañu def li ñu war a def balaa fitna di samp ci réew mi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 bu dee sogo duggu ci chaîne bi di TNM TV ñu lay ñaan nga abonné wu ba nopi ba sa cloche de notification bi lé ngir mëna a jot suñu vidéo